mais je pense que liggéeyu euh, conseil constitutionnel mën nañ ko attaquer à trois niveaux premier niveau bi mooy ci tirage bi ñëpp xam nañ sax bi ñu nekkee xale booy def tirage même boo bindee ay tur ci ay feuilles di nga ko jël nga enrôler ko ba mu am forme ronde parce que loolu moom mooy wane la notion de probabilité nga xamante ni ñi ngay tiire yëpp li ñuy waxe en statique en statistique biais du ci am mais doo jël ay ay ay enveloppe nga bind ko def ko mel na kuy wote amul fen ci Lonase boo gisee bu ñuy tiire ay boule la ñuy tiire boo gisee FIFA bu ñuy tiire ay boule la ñuy utiliser partout dans le monde ñi nga xamante ni ñëpp ils dans la modernité ils sont à l'ère de la modernité bu ñuy tiire ay boule la ñuy utiliser parce que derrière en fait y a des yi nekk ci gannaaw et il y d'éliminer tout ce qui est biais loolu c'est un premier niveau deuxième niveau bi moo moo yow nga defar benn logiciel ba nga xam ni amul benn sénégalais wala benn candidat bu mën na ma wax algorithme logiciel boobu loolu nag bu ma koy wax moi j'ai beaucoup ak la banque mondial boo xoolee pendant une vingt vingtaine d'années toutes les institutions financières yi nga xam ne dañ doon migrer vers des informatique ñun ñoo leen daan jàppale daan nañu toog pendant six mois nga mettre les deux systèmes en parallèle pourquoi parce que day am ay anomalie parce pourquoi parce que day am ay écart pourquoi parce que day am différence entre yow li nga def ci fichier Excel yi ngir reprendre ko sotti ko xelli ko ci biir logiciel bi mais nag ay munu ñu ñëw rek daal di nit ñi loolu dañ koy def et puis ci benn coup rek en deux minutes ñu ni ça marche comme sur des roulettes donc le résultat ñëpp gis nañ ko mooy aujourd'hui pratiquement boo jëlee candidat yi nekk ci les vingt sept d'ailleurs ci groupe bu 27 yi lañ bokk euh, les 27 boo leen jëlee mais c'est un nombre assez assez assez significatif de sénégalais qu'on dise que nekkuñu effectivement ci fichier électoral bi te loolu je pense que c'est inquiétant à la veille aujourd'hui d'une élection nga xamante ni on est à deux mois de ces élections ou bien même moins ñu ni tant de sénégalais te ñun ñi demoon en toute sincérité dem collecter nos parrainages nga xamante ne tey jii ñu tetee la protection des données personnelles mënoon nañu produire même ay carte d'identité pour wane nii ñun pare yi ñu jël à chaque fois on vérifie sur la pièce est-ce que ay électeurs lañu ou non buñ dul électeur ñu bàyyi leen parce que kenn dem élection yóbbu tamit ay ñi nga xamante ne du ñu ay électeurs donc je pense que aujourd'hui y a un travail de sincérité ba nga xam ne am na ci loolu te logiciel boobu moom moo ko indi parce que kenn mënu la wax ni logiciel bi algorithme yi ñu ko defee nii la logiciel bi nii lay attaqué base de données yi informaticien yi demoon toog daanaka dama naan ku doon jaay gerte caaf sax mënoon na ko def mënoon na représenté foofu parce que da ñëw rek ñu jox la benn télé benn écran moom ngay suivre après ñu jox la feuille bi nga daal di jóg dem sa yoon booy wax sax euh, gardien yi nekk ci biir conseil constitutionnel ñoom ñoo lay évacuer donc je pense que liggéey boobu à à ce niveau du liggéey ba nga xamante ni lu sérieux la aujourd'hui nag le monde mi ngi jàkkaarloog sénégalais yi tout le monde entier tey ñoo ngi xool Sénégal xool ba xam ndax recours yi nga xamante ni une trentaine de candidats def nañ ko te mu tegu tamit ci li nga xam ni cëslaay bi lu lu dëggu la parce que mënuñu nii tey jii ak quelques mois des élections fichier électoral bi kenn xamu ko kenn xamul ban fichier électoral lu ñu utiliser logiciel bi amul benn sénégale bu la mën a wax nii logiciel bi man diagnostiqué naa wala audité nañ ko wala gis nañu par exemple algorithme mi ngi dox wala nu muy jëlee et mais dysfonctionnement yi tey dafa wane ni tey bu fekkoon ni tey ñoom ni ñu ne c'est des gens qui son qui ne sont pas sur le fichier électoral boo indee normalement benn nit ba nga xamante ni mi ngi carte d'identité am inscrit sur le fichier électoral récemment mu voté ci ci kiiwu électoral mën na abattre en fait ñoom seen hypothèse de travail yi ñuy def te je pense que lii c'est très c'est très parlant boo jëlee kaw Dakar sur sept mille et quelques rejets ñun cinq mille yooyu ñoom malgré indication yi ñu joxe ci biir fichier bi ñu jox indication yooyu ak suñu ay indication benn la c'est-à-dire tu trouves le même numéro de d'identification tu trouves le même nom tu trouves le même prénom tu trouves le même discriminant ça veut ñun loolu dañ ko parcourir compter ko donc 5000 et quelques sur les mille boo ko jëlee ñoom li ñu wax ak ñun li ñu joxe daanaka benn la am yeneen yi nga xam ne ñoom wax nañ ko te loolu effectivement ñoom indiwuñu par exemple boo leen ne kii tel carte d'identité nangam nangam et cetera ñoom foofu vide amul dara lañ fa def te loolu muy mille pratiquement mille et yi nga xamante ni ci ci kaw Dakar donc loolu je pense que c'est assez critique dafa di masse critique aujourd'hui boo ko extrapolé ci trentaine de candidats yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci situation boobu dangay ngay tey jii li ñu waroon def moom mooy recours yi nit ñi def ñu bàyyi ci xel ñu mën a tey auditer tey ce système là boobu mooy bi ñuy reprendre données yi ak bi ñuy génnee résultat yi ñu mën ko auditer permettre aux candidats aujourd'hui benn audit indépendant mën ko def bu ko defee mu dalal xelu sénégalais yi parce que sinon ñu dem ci élection ba nga xamante ni ku ci nekk ay appréhension nga ciy demee te conseil constitutionnel wax dëgg yàlla moom mooy nag ci réew ñun ñëpp dañoo d'accord parce que en 2012 ñun ñoo ngi fi woon bi nga xamante ni conseil constitutionnel dafa permettre Abdoulaye Wade mu présenté wu mais ñun ñëpp lan la ñu wax dañuy dañuy dem parce que tamit wax dafa am fu muy jeexee mais wax tamit bu fekkee dafa war a am fu muy jeexee mais foofu muy jeexee war nañu transparent war nañu integre war nañu li ñuy liggéeyee tamit vraiment mu mucc ayib ba nga xam ne du créer ay jiix jaaxa ci xoli sénégalais yi. man dama laaj suñu informaticien man ne leen les enveloppes est-ce qu'ils ont été scellées enveloppe ñëpp xam nañu am na forme bu ñu koy scellé mais enveloppe scellé que du nga collé rek yam ci du nga collé rek yam ci conteneur boo ko scellé xam nañu ni ñu koy scellé enveloppe sele ñëpp xam nañu lan la mais demewul noonu. enveloppe boobul ñoom est-ce que ubbi wuñ ko bëri na ay candidats yi nga xamante ni des fois quand tu système boo laajee nga jël ñi nga xamante ni dugaloon nga leen nga laajte ñoom liñ la jox ñooñu nekkuñ ci biir. ils ont pris par exemple par région jël def ay tests jël cent personnes à Louga def test recherché leen ci li ñu conseil constitutionnel jox mais fekk ñu leen ci fichier bi léegi ñooñu fañ lañ nekk xanaa duñu ñëmal logiciel bi moom moo leen lekk ñooñu koy xanaa soit daañu nekk doublon. wala ñu nekk ci ñuy rejeté yi wala ñu nekk ay doublons internes mais doo leen fekk fen donc loolu je pense que ça prête à équivoque il est temps que sénégalais yi quand ñu sérieux par rapport ak li ñuy def parce que élection présidentielle c'est vrai que ñu bëri da ngay dégg ñu naan candidature dafa bëri mais c'est pas un problème candidature yi li ñu ñaan rek mooy ñu teg leen sur un processus ba nga xamante ni bu transparent la ba nga xamante ni su ñu demee ba ci cëppaandaw képp ka nga xam ni nee nañu doo bokk yow sa bopp di nga xam ni wala fii laa lajjee fii laa amee problème wala fii la ma toog xaar beneen